طبيبي قريب هل سقامي تسمع بابا جيغا خامن موم لا نيو بوك تاي نجابوتو لامب ñak na kenen ko xamne icône la ñak papa doubales tay lan nga wax ci ki nga xamne ni sa xarit la won sa papa tay ki nga ñak tay ñong la koy jaali ak wa ñi ngi santaat yàlla baax a baax euh, di delluwaat di sant yalla baax parce que yalla mo def ñu gan fi ci aduna jur ñu fam ñu wara juré aussi tamit di delu delluwaat yalla sant gi bu baax a baax a baax moom mi ko fi jëlé ci di ko ñaanal fu mu jëm rek gan ak fu mu jóge te xam ni àdduna moom lii rek la wa gané ci neex na trop bii dem dina metti wa lepp rek dañ ko delu delu ko sant rek wa sa digënté ak pap seen relation ak yeen ñaar kaddu gi mu la mujjé wax waaw ah, li ci mën wax papa dom? papa la papa la ak dom antu xarit aussi ndax sama nit le sama complexe la luko ken sañ ta wax wax lu defit dama koy def margar am na ay frère ak ay sœur yo xamé yam nañ ko torop mais nak am na loo yow dëgg nangu na mako may te duko may kenen suma nit la franchement parler ba ñi mujjé gisante yépp ci ay loxoy ñaan rek la may denk ak gorgolu ak fexé ba doon ben ak famille bi ak mbokk yi sutu sa lolu mom moom euh, nako torop trop waaw ak jaamu yalla sa fois del julli dama koy répété di ma ko wax parce que yalla suñu borom ken xamul kañ la waaw tay lu mel ni tey la doon suur fa leen wax ne ni metti na nag trop sax xam nga am wajur bo xamne da ngeen nan kaf di re te nga xey benn jour yalla jël ko koku

waaw Père Double moom suñu papa la te ñun nekkee booy waaye ñu nekk am moom loolu dafa yàgg tey boobu ñoom Balla Gaye sa judduwuñu maa doon toog simmi kaayam sama si doon toog. ñu gis ne am na gu bari gu dox seen diggante ca wéjuree la woon waaye lan moo la gën a marqué ca wéjur woowu. waaw mooy dafa dëggaloon dafa dëggaloon sama papa sama papa nijaay la si moom da ko dëggaloon waaw lu muy def lu ne dina waxtaan ñoo waxtaan ak moom jox ko cër. Euh, yan souvenir nga waaw mooy li ma conseil moo doon conseil rek xale yi des ñun ñun suñu suñu waaye wéy na yaa fi des xale yi nañ topp sa ginnaaw rek loo leen diggal ñu def ko loo leen ter ñu bàyyi boo amoon leneen looy dolli njaboot gi fi bàyyi ci wàllum dénkaane ñu gën a sàmm booloo doon benn lan la waaw njaboot comme li paa bi wax rek nañu nañu wéyee loolu rek comme moo mag jiitu rek ñu des topp si lu mu leen diggal def lu mu leen tere ñu bàyyi loolu laa gis quoi loo koy ñaanal

père moom lu ñu koy ñaanal yàlla na ko suñu borom xaare àjjana yi kawee rek ci barke Seydina Mohamed ndax loolu la fi dese ñu ngi koy ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo am yërmandeeg jéggal mu yërëm ko jéggal ko tàbbal ko àjjana yi kawee ci barke Seydina Mohamed suñu papa la woon papay mbër yëpp la woon képp koo xam ne am na ci combat ci géejawaay dina la taxaw jàppale la ba yàlla defal la li muy ndam muy safaan ak lu ci mënta xew rek dina la jox conseil dina la wax defeel nii ak nii ak nii ak nii ñu ngi koy ñaanal daal yàlla borom sunu sunu borom mi nga xamante ni moo am yërmandeeg jéggal sunu borom xaaral ko àjjana yi kawee si barke Seydina Muhammad. Aliou si dafa mel ni làmb commencé naa wéet. waaw làmb mi ñu commencé wéet mais namm-namm sunu borom la sunu borom moo namm li li may wax rek tey bis la suba bis la bis bu nekk la ci war a xew xëy na jamono ji lii la namm ci axlu làmb dañ koy sante yàlla rek te xam ne noonu daal alaakulli àll noonu lay demee yaax a yéex a gaaw fi nekk rek comme nii lay demee moom ñu leen di ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jóge ci axlu làmb suñu borom xaara leen àjjana yi kawee ci barke Seydina Mohamed ñoom ñoo ngi koy fekk ak ñi leen fa nar a fekk ci barke Seydina Mohamed waaw jot nañu mooy li may wax léegi tout à mooy loo xamante ni ñu ñoo ko bokk xam nga warul dafa war a rafet saa su ne xam nga ndax bis yu mel nii moom moo tax ndax xam nga jarul dara jaru fi def lu ñaaw dara jarul waxante def lu ñaaw kon saa su ne rek dañuy war a waxante lu rafet di jëfante lu rafet ndax bis yu mel nii moom moo tax en tout cas daal li wax mu bëri mu gàtt yàlla na ñuy jégg ñu jóge fii yàlla na leen suñu borom xaare àjjana yi kawee ci barke Seydina Mohamed na trop quoi. mais état bi war na def ay jéego di jàppale ancien Goulane am na xam ne seen loxo jotul ginnaaw du ñëpp waaw di leen wowaal rek état bi wax dëgg yàlla ñu jàppale suñu papa yi jàppale ak lu làmb tamit ndax metti na su mag ñi wax dëgg yàlla représenté nañ Sénégal teewal nañ ko fu ne teewal nañ Sénégal fu ne tey dafa ñaaw ancien gloire bu bu feebar rek ñu lay kettal wala ñu luy xam balaa ngaa faju rek ñëpp dégg la loolu moom xam nga rafetul jekkul kon ñi ci xam ne ñoom ñoo si war a taxaw dox ci wax ci nañ ci taxaw dox ci wax ci ndax lii trop c'est trop quoi ndax boo xoolee ñu fi génn presque ñëpp rek ñenn ñi xam nga dañuy soxla ndimbal bu baax te xam nga war nañ war nañ préparer loolu avant que gars yi di soxla ndimbal waaw mais loolu moom moo yoon suñ ko defee moom la war a def suñ ko deful moom la ñu a def mooy li ma la wax rek ñoo bokk ko séddoo kon saa su ne dafa war a rafet rek ñu bokk ndey bokk baay xàccandoo moo jekk moo jaaru suñ ko defee moom la ñu war a def suñ moom la ñu war a def rafet na jërëjëf li nga ñu bokk di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ku ci mel ne tey suñu père du balees jóge na fi ñuy jooy père mbay génn noppeeguñu lii tiis bi ñu dalaat suñu kaw xanaa lu tey li ban yëg nga ci am ñu la koy jàlle bu baax na waaw ñoo leen koy jaale ku ne mën na ko jaale sa morom ndax wax dëgg yàlla àdduna moom nii rek la demal maa ngi ñëw la ndax wax dëgg yàlla euh, sunu papa la woon papa baax bëgg njaboot wax dëgg yàlla koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ndax àdduna moom nii rek la demal maa ngi ñëw la rek barki dem moo Ndiaye lan wax dañ doon jooy père Duba euh, père euh, père euh, Mbaye Gueye te tey ji gis nga lii dalaat suñu kaw kon nag sant yàlla rek waaw àdduna moom li ci am solo moom bokku ndey ak baay jàmm xam ne loo gis dafay jeex ana sunu papa yi tey dem nanu ñun ñu fi des dañ ko rafetal àdduna amul solo fii loo gis dafay jeex waaw na ko jaal sa morom ndax Père Doubalès teewal na fu ne Sénégal ah. teewul na fu ne Sénégal raaye bu ne indi na ko fi kon nag tey su luy amee ku ne mun na ko jaale sa bopp voilà kon nag ñoo ngi koy jaale suñu rakk ji Balla gay 2 di ko jaale sa kees di ko jaale xale yi ñoom ñëpp vraiment di ko jaale suñu yaay ji yaay Sadio ah, ñoo leen koy jaale yéen ñëpp yéen tam presse bi ñoo leen koy jaale ndax ku ne mun na ko jaale sa bopp man sax maa ngi koy jaale sama bopp ndax suñu papa la ñun ñëpp suñu papa la su Balla Gaye ñàkkee dafa mel ni man maa ñàkk su Balla Gaye ñàkkee dafay mel ni man maa ñàkk kon nak ñoo lañ koy jaalé yéen ñëpp di ko suñu bop di ko akhlu lamb làmb ndax Père Double Less teewal na fune Sénégal te képp ku nekk ci lamb dem lamb démb ak lamb tay so gisé photo Père Double Less wala gis nga ay jaloorem di nga ko bëgg ndax liggéey na Sénégal at Père mbey at sunu papa yi nekkon ñun nak ñoo ngi ñaan yalla na yalla sutural te mu sën ci at làmmeñ da àggale sago yalla na dëddo ba la gay yàlla yalla ko dëno jam waaw te bala Gaye tam ñoo ngi koy ñaanal yàlla may ko xolu muñ xolu muñ ak ñoom saa kees xale yi ñoom ñëpp ñoom leen di ñaanal yàlla may leen xolu muñ ndax wax dëgg yàlla daal ñàkk nanu daal ñàkk nan ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk nan icône icône lan ñàkk icône ndax ndaanaan la lu na liggéeyal na ko senegal yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw ñoo ngi ñaanal waa Géejawaay gépp di jaale ñëpp képp ku nekk Géejawaay ñoo ngi lay jaale sunu papa Doubalès at ak làmb sax laay wax at Sénégal gépp ba ci président Macky Sall fii ñëpp fi war a teew ba ci président tout ndax paa bi liggéey na ko fi liggéey na ko ci nu réew waaw ñoo ngi koy ñaan nag yàlla na ko yàlla xaare àjjana yéen nag tamit jërë ngeen jëf ñoo leen koy jaale ñi ku nekk mën na ko jaale sa morom daal yàlla na ko yàlla xaare àjjana sunu papa la woon wax dëgg yàlla nekk njàmbaar na nekk bañkat nekk jàmbaar nekk gaynde voilà yàlla na ko yàlla xaare tudd yàlla rek tudd yàlla rek sama xel mi dafa ne yar sama rakk ji Balla Gaye 2 sama xel dafa na yar ci moom ba ma ko yëgee waaw sama yënam bu dee nagam ndax barki dem boo njaay lañ fi taxaw di ko di naan dafa feebar dafa feebar ñëpp di ko bind ñëpp di ko bind naan dafa feebar tey ñu xëy tiis wi dal suñu kaw waaw kon nag sant yàlla rek sant yàlla rek te gars yi nañ bàyyi wax wax baaxul di njëkkante di bëgg ay information di def ay fausse information baaxul bala ngaa bind wala bala ngaa wax na leeral gëstul gëstul yéen laay waxal yéen ñi journaliste ba la ngeena wax wala ba ngir bind de len geussu de len geussu est-ce que nekkul dem dañ ko gëna a mo moo tax gars bind lool dafa lëlu ñu nekk ci mu nekk fa wala ku ne site bu ne wo bu ko ñew jël wala tele bu ne non non non. dafa nekk ci combat combat bu nu ñor bu nu intéressé lan ñuy Balla gay fu muy lu muy taxaw di lambar lambar fu ne mu ngeen pour ngeen koy gis rek pour lan pourquoi pourquoi ça combat bi dañ ñu ko ñor combat bi daf ñu ñor. manam ma kan la waye def na su ma dama nek ci dëj way bu len ma tàng la waay bugguma tang tay damay wacce sama kii bugguma tang dama dama am nakar de nga wala ok par combat Balla Gaye ak ñu jégué won papam tay du balès ak lamb joju mbaa du bëree manam du bëree pression bobu ban pression Balla Gaye mag la léegi ci matière Balla Gaye ci matière Balla Gaye kilifa la euh, ñaata yoon la mujjé bëri ni te gisul pa bi pa bi ñewul Hmm? paa bi kay nan ko ñaanal rek nan ko ñaanal nan ko ñaanal rek yàlla xaare ko àjjana wax dëgg yàlla. làmb ngi commencé wéet nag. ah waaw làmb ngi commencé wéet moo tax ñi ci suuf ñi ci suuf dañoo war a xool sunu papa yi ak ñu démb ya xam ne àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex na rafet na rafet dañ yéenante jàmm làmb làmb la dañuy bëre dañuy liggéey dañuy mayante xaalis su jeexee jeex na ñu bokk ndey ak baay wane nga ko fa nii passé Khadim Ndiaye ba dal daane si doom dem nga fa def acte bu rafet yóbbu fa li nga xam dund ak yeneen ak yeneen. loolu mooy àdduna lo sport su jeexee ji Khadim Ndiaye ma mag la suma grand frère la Khadim Ndiaye lu nekk yekk naa ko fi lu nekk wax na ma ko fi ba tast fi sama kër yëngaloon na sama kër comprendre nga loolu su amee lii daanu gis nga doom miir boobu daanu si kaw dooma pourtant doom yi kooku mu daanu daf ma doon woo téléphone léeg-léeg naan ma ay liiru bàyyi sama papa sonal nga sama papa de wóor ma ko yëgee après Khadim Ndiaye ne ma kooku la moo tax ma def dérangement dem seeti ko yóbbu samay teraanga te c'est normal loolu laa war a def loolu laa war a def ndax damay won ni tey ñun dañoo war a xool ci ñun dañoo war a xool ci ñun ndax xam ne su jeexee jeex na xool suñu papa yi yaa ngi dégg Assane Goulart ñoom ñëpp dañu nekk benn bokk ndey ah tey jii ñun ñu seen mag dañoo bokk ñëpp war a bokk ndey ak baay suñu rakk yi xool ci ñun moo waral ma def acte boobu te pare gu ma de sama papa ngi nii euh, père euh, kii Mohamed Ali dafa feebar. waaw waaw tey jii laa foo waroon a dem far yàlla dogal lii mu dogal waaye maa ngi waaj dem seeti ko incha allah rabbi voilà ndax àdduna amul solo fi loofu gis yéen ñoon suñuy papa lañ suñuy kilifa lañu waaw ñoo ngi koy ñaanal yàlla yëkkati ko ak jàmm voilà. nga ministre des sports Matar Ba pour mu gëstuwaat Ansa Goulart parce que Ansa Goulart yi tëdd bari nañ fi mu ne nii. ah, ah ministre bi bala leen a gëstu président mooy dooleel ministre bi ministre bi ñëw xool jàppale Ansa Goulart yi ndax mooy yoon. ancien gloire du ñëpp man du ñëpp man am na ñoo xam mënuñu tey jii Balla Gaye se euh, Less euh, ñaata weer la tëdd feebar te kenn xamu ko li ci war Balla Gaye mi ngi koy def ak fereeram te mooy doomam ah ñëpp est-ce que mën nan loolu ñëpp est-ce am nan loolu ah moo tax ni euh, président na jàppale ministre bi Matar Ba mu gestu ancien gloire yi ndax loolu mooy àdduna ndax ancien gloire ñu si bëri teewal nan Sénégal fu ne raaye bu ne indi nañ ko Sénégal raaye bu ne indi nañ ko Sénégal ok loolu rek laa amoon ci lu may wax. voilà président na jàppale ministre bi ministre bi ñëw jàppale ancien gloire yi loolu mooy àdduna gërëm naa leen sant naa leen jërë ngeen jëf waaw te tamit li ma lay wax rek ci ak kii yi rek euh, ci loolu information fausse information bàyyi leen koy gaaw a joxe xaw ma kan la xaw ma ban journaliste la. waye billahi wallahi mare naa ko trop waye waaye yow weesu na kooku mooy bàyyu saytaane nga ma saytaane la ba طبيبي قريب هل سقامي تسمع